jëm yaa ngi koy fi mu jëm jëtt mu dul loolu moom bu ñëwee xam xaw daal bi xam ñëpp ñoo koy sonte waaye waaye maa ngi dem ci suuf dañ ko ko toppal maa ngi fexeel loolu génn ba ma ngay dem maa ngi toppal ma ko toppal ma ko ba xam fan loolu ñun rek ñoom ñoom yaakaar ak keneen teewul. di glace la am bi ndox mu sedd la naa bi glace la. waaye Seydou kanaara yi ci làmb ji ma lay jàpp kanaara yi lu mu bëgg. ñaari ci bopp saraxe leen bopp. kanaara yaa ngi noonu. kanaara yaa ngi noonu de. kanaara yaa ngi noonu de léegi kanaara bi peer la. góor la benn jigéen. ñoo éleveur xamut kanaara yi dara. góor laa génn bu doon ñaari góor benn bu jigéen dégg nga noonu ñu ne bàyyi xel si rajo bi ñu ne suñu Dakar Buzz maa ngi leen di nuyu di leen ziar te ànd ak ngeen di bàyyi xel Dakar Buzz jàpp ngeen ne direct bi ngeen bëgg Dakar Buzz lañ ko mën a jot tey yéen a yéen ko ci barma ngay dikkaat añee. ndawale ak boisson. kan moo la ko jox. damay bañ su ma demee stade. série 100 mètres di ma gérer. ah da ngaa war def ay 100 mètres. non après ci kanam ngay comprendre. bu ndongole loo ñëwee. waaw day comprendre. waaw anam ndongole loo anam anam. en direct c'est Modou Lo gars yi préparé wu. Lamine ngi noonu. Cuk. Gars yi def rek. Papis sa nun, papis ka rin nun. Mampares. Papis niyo na. Ano pare? Mampares. Papis ka rin nun, yaligis nun. La la la. Ano mampares? Mura ka rin nun. Mura ka rin nun. Ano mampares? Papis Mura ka rin sene ko mbër lay jëli jàmbaar dëgg laa am mbir ñuy def

Papis dana wàcc. tey mën nga dem dama. Papis Papis. Papis lay jël. doomu Modou wi nii. ziar nañ la. yàlla ziar si loo leen wàcc. sant alhamdulilah. loo leen nii di wàcc comme d'habitude rek. ñu ñaan yàlla suturaal ñu. ana mbër. mbër waaw mi ci yoon mi ngi ci ñëw. mu ñëw. mi ngi ñëw waaw. en tant que doomam nan nga gisee état non oh, instant yii moom gën a sant yàlla quoi. Hmm. Mhm. wóolu nga ko baax naa. non instant yii moom mooy loolu. lan nga gis ngeen andi doomu daan wala bëri wala. non waa ji lu mu ñëwee rek fekk loolu. lu mu ñëw rek fekk loolu. lu mu ñëwee rek fekk loolu. Hmm, mobilisation lan nga koy waajal. mobilisation ah du gën a woo gars yi rek naan leen xam nga waaw làmb ji seen làmb la. Hmm. képp koo xamante ne rek ba soppee Modou Lo nga rek ñu ngi lay woo ci des bi. di ñaan nga ñëw xam nga ñu jàpp waa ji duma ko bu mu sonn doo ko daal mobilisation bi ticket ngeen fekk te ticket dafa seer dix mille bu doonoon cent mille sax fan sa kala fan sa Modou Lo ay noble lañ hmm. waaw ticket bu doonoon cent mille francs hmm. ñu koy jënd ci kàttanu suñu borom Pikine ngeen dem de tool Baye Ama Baldé la man Pikine sama dëkkuwaay la sama ki jur sama yaay fa dëkk jur sama papa fa la dëkk hmm. kon ñun Pikine man moom Pikine du ma fa gan amul dara loo xamante ne maa ngi ko fay ragal moom wax dëgg fa yàlla. du ñëw jàpp waa ji du ma ko daan incha allah ci kàttanu yàlla. open press tey lan press ah ñëw rek jàpp bu ñëw rek bégal supporter xam nga wax leen li ñu nar bu bés ba ñu ñëw jëfe loolu rek waaw lépp lu bees daal loo fi di nga ko gis incha allah. incha allah jaajëf jàmbaar. parce que xam nga gars E aí, o barrière yi fas yéene baare koñ

a victoire bu rafet waaye nii. waaw maa ngi nii bilaay waaw ñëw di soutenir suñu champion bi rek. Hmm. barke alxuraan karim xam nga kii xam nga comme ko Papa Sow rek mooy imam bi. Ah. waaw ñun ñoo si ginnaawam xam nga dañuy ñëw xam nga soutenir ko ñaan yàlla dimanche yàlla na yàlla àndal ñun. te hmm. si yaakaar bu baax a baax a baax si kàttanu yàlla. waaw incha allah. ok incha allah. lan nga gis mbër moom ban côté la gën a pare. waaw pare na fépp Modou Lo moom xam nga rek Modou Lo moom pare na fépp hmm. physique moralement lépp lépp lépp loo xalaat rek Modou Lo pare na ko hmm. waaw dañuy ñaan yàlla moom mi nga xam ne moom may rabi sama war ba fi arbi yàlla na yàlla ànd ak ñu dimanche mais commentaire gars yi ama yére ama daa mel ne moomum fépp waaye déggoo ma ama lu koy déranger may koron bi waaw déggoo ma de mais da koy jëlee xalaat parce que déggoo ma koron bi du ko jël si ñun parce que amul tax hmm. amul tax ñu dañoo pare fépp quatre ans bëriwuñu yoon la yoon la ñu ñëw wane suñu bopp waaw yoon la ñu ñëw wane suñu bopp te si kàttanu yàlla dañuy wane suñu bopp di ñun ñun mbëru ndaw nekk parcelle dañ koy ñaanal man sama combat la 15 lu nekk la si daj moom ma doon may contact mo doon dañ koy ñaanal yàlla na ko yàlla fay xolam hmm. te bis bu ko yàlla fayoo xolam wallahi lazim day am ndam si kàttanu yàlla Ama Baldé dañu téye combat la si kàttanu yàlla état bu Ama bi waaye déggoo am lay ndax nii rek état jaaxluñu Modou Lo ngan jaaxlu woo ku xam Modou Lo xam ne ngan jaaxlu woo ñun pare nañ fi ñuy war a suñu borom dañuy ñaan yàlla dafa wàññi Ouma tey di nga xam dara boo ñëwee gis ko di nga xam dara incha allah. di nga xam ne saa liggéey na te pare na. loolu andi lu bees. déggu ma loolu andi lu bees. waaw lu yenn lu bees may xam bu bees xam nga fecc bu bees supporter feesal stade bi yëpp jàpp Ama Baldé daan ko jël bu set wicc indiwaat suñu koron koron bi fii lay des du génn si kàttanu yàlla incha allah. merci big up. te bu fekkee ne ni lu baax li mu dund man. Modou Lo lu baax li mu dund ak man man mi nga xam ne du citoyen Dakar wa je suis un citoyen à Xombal Xombal di jóge di ñëw Modou Lo di xool di xool loolu ba si ma man Modou Lo bu ame bis ñëwuma man bu yabo ma doon daakaande barke maam Seera Fall billaay te du ma bay sax de sama bakan bi Yang mi mau kau may heure bu Modou Lo xewlee ma ñëw wuy du ay koppar de du oto bu rafet de du dara mais xoolal yëg ay waay man sagaru nit bii waa ji di déranger Ndakaaru ba xombal di ma seet si man sagaru nit bi waa mais man kii bu xewlee ñëw ma man nan laa war a def nee naa suñu waa kër sam papa sama yaay boo leen doon bëri ak Modou Lo dallu Modou Lo laay faral nit dina la jur ab jàmbur def ci yow loo xam ne ki la jur defu ma ne sama sañse bi xoolal tout balan la kawa si lépp balan kon xam nga ñun jàmm ñu woote ama gis nga affaire bi du wax ju bari Modou ba le koo daan di nga liggéey ba sa taat tooy Modou bala nga ko daan di nga liggey ba sabtaat tooy ta barke seen mbakem adna borom ñaamar bu fekke julit bima di julit di japp di ñaanal Modou yalna na nekk victoire di gën neex ci suñu victoire yi dana am yépp man xawma ma kenn de man xawma ma mbeur man xomba la dekk xolal ñaata champion ñoo dekk sama ginnaaw Réfone Rémao ñepp ay champion lañ xawma kenn man Modou la xam ndax Modou Lo mooy xombal de. amul benn mbëru Bawol bu taxaw fi tuddu xombal c'est la première fois Modou Lo xombal. man Modou Lo xamalal mooy tax ma bàyyi ko pour wax ji dee ma dee ñu suul ma Modou di bëre ji ma bañ a ñëw yéen journalistes yi nag maa ngi leen di nuyu di leen ziar wax nag wuyu ma ñaanalay leen Modou xam nga ne mooy borom bës bi wasalaam Ahmed laa doon seet yéen a ma ko yàq. Wow. Amen. supporter Modou Lo yu rouge def de kër rouge ana amaay lañ def vert ay kër yu bokk ñu xool kan amaay lañ def kër vert Modou def rouge lañ def nekk de nekk parcelle waa amaay ñu ëpp doole mu ca direct bi abis xarañ loo ma nekk abis xarañ ngi noonu nekk si biir oto bi

mais yéemu ni na yàlla ama jéem ne la waay loolu la si am loolu kese la am si bés bi à part loolu amul si sens na ko euh, loolu moom xam nga li naan kuy dem ar moom doo teel wax say ngàndaay Modou pare na ñu war a enteré ñëpp pare na dañuy xaar suñu borom yi bu ak jàmm rek ñoom lamb ji nel lañ indi ndam dañu nel lañ indi waaw waaw xam nga nel moom noonu mën ma laa rek ma ne nel moom allah am ni ñu ngi lay dee li ngeen indi de non du tax ma ndel firaw na moo ko moom firaw na moo moom ama may ah non non firaw na moo moom firaaw na rek moom moom ndel parce que parce que parce que bu defee ndel couronne bi du ko jot kon cela veut dire que ni lu mu def xamu ko nga ne amaana amaana su la tëral bi 12 pare 100 francs waaye loolu saa yi wala mbër la après nga ñëw wàññi poids lu mu war a loolu sa waay avant mais bii da ci xaw naa ko nee naa leen avant ñi mu muuru avant stress moo ko jàpp bu entraîné la ama andi forme la mais yow ama yor forme bi nga ne entraîné ñëpp gis la yow jaara

ma ne la foofu toolu maam yi ñëpp la bu fekkoon son toolu maam la kon duñ fa duñ fa duñ leen fa daan ñoom ay waa Pikine ñoo ngi daan mais ñun tamit ñoo ngi daan Petit Lo daanul bi passé bëree góor la ñuy ñàkk barki alxuraanu karim lu fay nekk maa koy def pare bi sifflé ama yéemuñu sax déglu ma rek barki dafa ngoon tomba daan bi fa sangoo njàmpe ay mbomb nga fay sangoo da ngay mbomb mu naan direct ñun kii lañ yor kii lañ xam ñun xamuñu lu amaa yor mais kii moom li ñu xam ci moom mooy bëre daan ñibbi la ñu tàmmal te loolu lay def naa la Modou champion sportif la fàqatee la tëdd ci matin li mu def ci lamb ji doon xale màgg bul ma sa bàyyi jàpp si bul nelaw jógal topp ñoni ngi sa ginnaaw duñ mas a daw daanoog daanu lañ yemale victoire ak defet kenn du ko jaawale yar téggal lañ la xamé ci bir géew bi lañ la bëgg ni ngay def soko mané mënee ñu daal di wone yaa ko wax ñu dem ko ya ko def ñu seede ko ñi do seen morom ndax yalla def nako ay Papis Papis Papis ay nono la jël Modou